ñun dañoo nekk ay liggéeykat yi nga xam ne dañuy yëngu ci li nga xam ne moom la ñuy wax marché luuma marché luuma nag ci tënk mooy ñi nga xam ne jaaykat yi nga xam ne dañuy jóg di toxu ci gox yi fasandikoo yi tey bu ñu nekkee fii boo liggéey ñu ngi fële ñun nag ñun nag wax dëgg yàlla yàgg nañ ci liggéey boobu suñuy bàyyi lañ ci fekkoon ñu mel ni ñoom Baye Sangu jóg ak Sang Gueye ak ñoom Pape Gueye fekk suñuy mag ñu mel ñoom Cheikh Ndiaye ñuy toog ba tey mu mujjee suñuy loxo wax dëgg yàlla nag boobu ba léegi ay at a ngi nii ñun ñi ngi koy def ba àndul ak benn coow àndul ak buri àndul ak dara te wax dëgg yàlla nag liggéey boobu ñuy def euh, benn bi ci njëkk mooy facteur de développement la régulateur société la parce que li ma ciy joxe firnde mooy marché luuma rek laa ci gis ci marché boo xam ni bala moo teg fi muy teg dafay fay ba noppi te fey bi muy fay directement ci état la jëm mais bagage yooyu ñuy taalal tey jii ñu mën naa ne suñu lépp ci la nekkoon suñu njaboot ci la nekkoon suñu lépp ci la nekkoon li ci gën a néew rek ñi nga xam ni moom seen liggéey la mooy UC bi ñu ko xoolee saytu ko dem na ci cent vingt millions trois cent vingt mille kayit yaa fii ñoom ñoo ko saytu seen liggéey la ñu ñu kiiw te ñun ñu ci liggéey xam nañ ne loolu nekk la liñ ci wax sax am na lu ci des ndax dafa nekk bagage yoo xam boo boo ko xamut mën nga koo xeet mais ñi ko xam bu ñu la waxee li ci nekk rek nga xam ne lii ñu lay wax dëgg la waaw ñi nga xam ni ñoom ñooy ñooy ñooy waa kaaf ñi ma fi waxoon sànq ñi xam ñoom ñooy importer bagage yi ñoom ñi ngi fiy toog xëy na dinañ dëggal après li ma wax waaw loolu nag lañ ne woon tey yi ci gàttal dinañ fi ñëw jotali ko waa réew mi jotali ko kilifa réew mi jotali ko ñëpp ñi xam war nañ cee jot à travers la presse ñu xam ni seen njaboot jaaxle nañ seen njaboot ñu ngi ci ay jafe-jafe bu ci yàggul dara li fi xew ñu ñëpp gis nañ ko événement la yoo xam ne bi muy am ñun liggéey rek moo ñor ñu ngi woon suñu liggéeykaay di liggéey fa la ñu fekk taal suñuy bagage lakk ko ba mu jeex. heure boobu suñu rongoñ suñu rongoñ tuuroo suñu bët bu xonqee président Idi Thiam la ñuy gis ak UNACOIS moo waral nag tey ji ñu ne suñu kàddu kon dinañ ko jotal ci réew mi yëpp suñu kilifa yi nga xam ne war nañ cee jot jot ci. voilà ñu ngi nuyu ñëpp.

am senes tuut ñooñu buñ leen sàgganee ba lépp lu ñu liggéey mu yàqu kon mel na ni ñu ngi dimbale ñuy dem ci gaal yi ñooñu bu leen protégé wul mel na ni ñu ngi yàq suñu réew ñu ngi dimbale chômage kon li war léegi mooy ñooñu ñu protéger leen de telle sorte que ñu mën a liggéey ak tout en toute quiétude parce que réew li koy développer muy gëm sa bop nibal na ci fekk loxol borom état buy dimbalé ñu melni ni yéen la wara dimbalé dimbale ñi nga xam ne dañoo xaar seen tànk tubéy fas seen sër di ñaq pour tedd ñi nga xam liggéey ñu di ñëw di leen yakal ñoñu leen di amnistie c'est pas normal parce que lool moy encourager bu ëllëgee lu mel non di amaat dañ leen wara décourager de telle sorte que bu manifestation amee kenn dootu ko defati képp ku yàq yëfu jaamul ñu teg la ci yoon teg la loo xam ne daan boo xam ne bu ëllëgee sa morom bu ko gisee dootu ko defati waaye liggéey kat yi di liggéey yàqkat yi di yàq kooku du dëgg du yoon c'est pas la démocratie c'est de l'anarchie président Idi Thiam nag nee na moom du far kuy tooñ waaye képp ku nekk ci njabootam ku la tooñ jaral na ko lu nekk jaral na ko bakkanam kon nag na tranquille nous allons faire tout ce qui est à notre pouvoir pour que vous soyez protégés dans l'avenir parce que ce n'est pas seulement de vous rembourser ou bien de vous indemniser mais de vous protéger pour que l'avenir ne soit pas comme aujourd'hui